Thank you. sàkku ci yéen mbokk yi ni ngeen ko xamee seen émission ëttu kër gi ci turam bii di seen xarit seen mbokk moom maam ñan di leen jox matal xol di ko ànd ak yéen tey nag dañoo am gan gan bu mag macha allah muy première député ci télévision Kifne TV ci émission Koutouté wax ni kër gi ay néeg ñoo ko wër dañuy def ay xam-xam waa ëtt bi soxla ko war ko jël tey ñu invité nag imam Bachir Niang bokk yi suñu nee imam nag bu ñu tànn la bu ñu nee nag nañ tànn faaw am ñu fa ba kon yaakaar naa ni ki ñu tànn jiital ko am na lu tax ñu tànn ko muy nit ku baax imaam raati maay sant yàlla jënd caari kaw di jàngalekat di yarkat di borom xam-xam bu laabiir ñu taamu ko nag tey di premier invité ci télévision Kifne TV ci ëttu kër gi ñu bëgg ko ànd ak yéen imaam Basir ñu ngi lay siyaar. barakallah waqala simna asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan Kifne TV ñu ngi leen di ne ci turam ak santam di di leen boole xaq di ñaan borom bi subhanahu wa taala am boole ñu baal di nuyu kenn ku nekk rek ak fu mu mën a nekk moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew waaye tam di beral nuyoo ak ziar sëriñ Mor mi xam ne tey moo ngi dalal ñaan yàlla doolu ko sàmm yokk ay tegalam defal ñu ko waaye tam defal ko mbooleem itam mbokk yi ñu ko àndanteel ci wàllu liggéey bi jiital ci sëriñ Ngom ñaan yàlla doolu ko sàmm moom itam yokk tegalam ak technicien yi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi kon sëriñ bi ñu ngi lay ziare baax a baax a baax di la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ah, imam Bachir jërëjëf ngeen baalu ñoo ngi am dëkk lool wax dëgg yàlla ci dal fii tey ci télévision Kifne imam euh, tey de thème bi dañu koy joxal ndewenal ndax ginnaaw dañoo jublu muy bis bu màgg bis bu nga xamante ni bi jullit yëpp dañuy maase ci ànd bi ko préparé sonn nag lool ngir bëgg si bis bu ñëwee rek daal di jag ndax ñu am ci ngërëmal suñu borom imam kon mu mel ni nit ñi nangu nañoo sonn ngir di waajal bis bi waaye mu mel ni bis bi ñëwee ñu ci bari sama classe dañuy fàtte li taxoon ñu koy wàcc te bari na nit ñoo xamante ni tey imaam te bis bu ñu damay wax ni suñ koy jàpp bi la ñuy wax ñoo mais bu ñu egsee ba ci bis ba rek da ngay gis ni lu bari changé na mais waajal bi moom dana yaatu yaatu boo xamante ni nit ñi bëri ne ci njëkk mooy imaam li nga xamante ni dañuy dal xar yi imaam ñooñu ñu war a génn si seen xel lañ ndax man mënuma comprendre ñu ni ginnaaw suba la julli wala julli des na juróomi fan en gros dina cher détail yow tey boo demoon di jëndi ndawal ndawalu xaar duñ nga ko jaayee lu passé quatre mille tey soo bëggee jënd jënd xar ñu bàyyi lu dugal ko jaay ku ne sept mille wala ku ne six mille franc mais naka la en gros di gën a seer détail ma jàpp ni ginnaaw ñi ëpp ñuy jaay xar yi ay jub lañ te ñi ko aajowoo bari te bu dee téeméeri ñoo ko aajowoo juróom-ñeent fukk yi wala juróom-ñeent fukk yi ñëpp dañ koy taxale soog ko am kon imaam ñu génn ci bis koo xamante ni lu bëri war nañ ko ci jàngate. ñun bis boo xamante ni dafa am lu waral bis bi imam ndax suñu yonent ci salaa salaam suñu maam Ibrahima moom la yàlla joxoon ndigal mu nar a rendi doomam suñu borom ci yërmandeem ak bëgg mu bëgg doomu aadama yëbal Jibril mu jël am xar tër xéewal googu tey ji war bisu tabas ñëpp ci sonn di ci am ay mbégte di ci balante ak ndax xéewal bi ci nekk imam mu mel ni est ce nit ñi bay nañ xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax bis bi ak liñ ci wara a Basi. la ak doomam ja di alayhima wa ala nabiyina afdalu salaatu wa salaam mu mel nii yàlla dafa doon nattu sidna ibrahim alayhi salaam ndax cofeel bi nga xamante ni moom la ko ëmbal dëgg la ci moom wala déet ndax bari na koo xam ni sëriñ Mor dina woote bëgg yàlla dana woote gëm yàlla waaye bu amee njaboot léeg-léeg mën na jël ko ci kaw boromam subhanahu wa taala am soxnaam la jël teg kaw boromam am xam ni alal la jël teg ko ci kaw boromam am na koo xam ni itam ci kaw boromam loolu mooy waral di boroom bi subhanahu wa taala santaane njaboot gi am ñoom itam seeni santaane bu fekkee ñaari santaane yi dëppoowul nga jël santaane njaboot gi bàyyi santaane borom bi subhaanahu wa taala bari na koo xam ni la muy dugg xam na ne xaraam na xam na ne yàlla subhaanahu wa taala tere na ko waaye man tey dab bëgg-bëgg soxnaam wala man tey dab bëgg-bëgg doomam wala xalaat na ni lii kat jaaduwul waaye su ma ko defee mën naa cee amee alal mën naa ci amee am koom. mu mm-hmm. ni naa ko def ngir ma am ci loola. Mm-hmm. kon kooka léegi boo ko xoolee. Mm-hmm. jël na loola wala ñooña teg ko ci kaw borom subhaanahu wa taala. kon salaam. dafa dund ba màgget. egg ci as boo xam ni. matal na téeméeri at wala téeméeri at ñu na ba matal moom wala mu jege ko. te ñoom yaakaaratuñu ni dinañ am doom waaye yàlla ci mbaaxam ni nga xam ne dara tëwu ko may leen doom doom jooju nag duñ ko gëmee ndax ñaare dañuy wax toujours mag dafay bëgg doom li ko waral mooy âge bi ñu koy amee dafa nekk âge boo xam ne dafa dem ba naagu soo koy am ñaareel bi itam foofu mu ko amee li gën a baree bari su ko amee dara du ci toppaat moo tax ñaare mag dafay bëgg doom bëgg boobu mu bëggoon doomam waaye tam mu mel ni am na niser bu mu niseroon diggam ak boroomam ci won ko ni même su ma amee doom sax mën naa ko jël jaamoo waat la ko ci rayal la mu ne niser boobu la ko yàlla fàttali waaye mu war koo def ni ngi ko waxee léegi borom bi subhanahu wa taala ci yërmandee ba ndax lim ñuy sant ñu koy def jëriñu ko dara lim ñuy tere itam pour ñu ba ko suñ ko bawul du ko wàññi dara ci yërmandeem ju yaatu ji mu ne Ibrahima alayhi salaam jëlal am xar nga rendi bi nga xamante ni dem na ba dogu ci def li ko yàlla sant nga gis ni tabaski sëriñ moor man nañ ci jàng ñetti mbir mooy doom dafa war a déggal ay waajuram soxna dafa war a déggal borom këram waaye tam borom kër dafa war a déggal boromam gis nga Ibrahima alayhi salaam ba yàlla santee loola hésité dafa ñëw rek wax doom gi ni ko yaa bunayya inni araa fil manaami anni asbahuka fanzur maazaa taraa danga ci déggee itam ni waajur lu mu am sañ-sañ ci doom lu mu am am sañ-sañ ci njaboot léeg-léeg ñëw diisoog ñoom na leen di laaj xalaat wolof day wax ni xalaat bu rafet puso bu réer la mag mën na ko for xale mën na ko for sina ibrahima alayhi salaam bi mu doom bi ñu ko yàlla woon na ma ci gént ni naa la ren bi da ci yëg itam ni doom jooju beneen affaire la du xale kese kese ndax doom ji yëg na ni gént gi bàyyam gént du gént kese kese waaye ndéey la lu jóge ci borom bi subhanahu wa taala hmm. moo tax bi ñu koy tontu Seydina Ibrahima dafa ne ko dama gént di la rendi mais moom bi ñu koy tontu dafa ne ko defal li la yàlla sant hmm. waxul defal li nga gént ndax xam na ne loolu ndigalal borom bi la subhanahu wa taala yamul rek ci ni ko def ko hmm. waaye daf ko ci tegal nii sa tajidum insha allah min asabirin soo ko dee def itam bàyyi doo gis mukk lu la naqari ci man danaa ko nangu te itam niñ ko bëggee dinaa la ko yombalal noonu ñu ni sax jox na ko ay conseillers ñu ko bàyyi comme yow yaa ngi jëm mag sa kàttan néew na maa ngi toll ci di am kàttan amaana boo ma bëggoon a rendi mettitu rendi soo xamante ni yëg naa ko mën naa fekku te su ma fekkoo mën naa la ëpp kàttan su boobaa lala yàlla santoon dootoo ko mën a yeggale ci man te bu boobaa mën nga am daani yàlla may tam mën naa am daani yàlla kon bàyyi yeew ma bala nga may ren mu ne ko waaye tam sama mbubb mii summi ko su ko defee boo demee jox ko sama yaay mu nekk subum wi boo xam ne daf ma koy xool Ibrahima alayhi salaam doog na ci ren di doom bi ba tëral ko nee nañu waaye bi nga xamante ni dem na ba nar koo def yàlla subhanahu wa taala moo téye ñoo ko paatal mu ne bi ko tëralee di ko reen di mu baw baw daggul doom ji dafa ko bàyyi dama yaakaar ne ni nga may xoole ñuy jàkkaarloo ba tunjuréel ak yërmande googu mën na tax ba doo am kàttanu mën maa ren bi kon bàyyi damay ñaan hmm. nga tëral ma maanaa nga dëpp ma bi nga xamante ni wax na loolu baay bi hmm. baay bi dëpp ko di rendi ci loos bi waaye daggul nee na Ibrahima alayhi salaam di mel ni kuy bëgg a jaaxle waaye yàlla ni ko li ma soxla woon def nga ko te mooy nangu rek la yàlla soxla ci ñu waaw lim ñuy sant yëpp ñu def ko jëriñu ko dara waaye ñu yëg ni moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala na loola la soxla mooy lu mel ni li mu waxoon Seydina Daawuda alayhi salaam nee na yàlla dafa ni daawuda sant ma moo ci yàlla daawuda jaaxle doon da xalaat nan laa war a sant yàlla nee bi muy xalaat ba jaaxle yàlla ni ko waaw looy xalaat mu ni ko man dama jaaxle ndax lépp lu ma yaakaar ni war naa koo jëfandikoo pour sant la bu dee xel ni yaa ma ko jox bu dee alal ji yaa ma ko jox bu dee kàttan ji lépp yaa ma ko jox kon man naka laay amee lu ma la sante maanaam dafa yëgoon ni moom dafa waroon am li fi boppam ñu mu delloowaat yàlla subhaanahu wa taala njukkal hmm. yàlla ni ko al aana shakartani yaa daawuda daawuda xamal ni nag yow yaan ngi may doog a sant hmm. te mooy bi nga demee ba yëg ni yow nekkatuloo amatuloo yàlla rek moo fi nekk subhaanahu wa taala ibrahima alayhi salaam tam bi mu doogoo ci loola hmm. yàlla daal di koy woo moo tax alxuraan dafa wax ni wa fadaynaahu bi dibhin aziim maa ko jotee am kuy moo xam ne mu rëy moo tax suñ bu ñu tollee ci jamonoy tabaski ñuy coow ci xar yi dafa seer ak nangam nangam mm-hmm. man damay wax ni tabaski du cher mm-hmm. ndax li li tax mooy mm-hmm. ku ñu rayloo woon sa doom yaakaar naa boo amoon ay millions diñ ko génnee def ko ci li lii firnde bi mooy ku ci sa doom feebaroon tey hôpital boo yaakaar ni boo fa demee mu wér danga fa dem danga gis ku dem ci hôpital ba jaaxle mu mm-hmm. wëlbatiku dem ci service yi mm-hmm. lu mu am dina ko def pour doomam jooju wér mm-hmm. kon doom jooju bu ñu la ko remplacer am xar kon xar na boo ko jëndee woon ay millions itam jar na ko loolu nag seen seen moor euh, dàqoon ca nit ñi war a am yërmande li nga wax léegi ci wàllu bu ñu egsee ci jamono yooyu jaaka yi seeral xar yi loolu bu ci tabaski rek moor sénégalais ci ñi gën a baree bari ñoo habitué lu nit ñi soxla ñu defe ko ndax loolu nga gisaat ci transport bi mhm. yoon wi ñu daan dem nga xam ne da ngay fay diggante bi ñaar fukk mhm. léegi mën nga caa fay téeméer te doo yegg mhm. ndax oto bi waroon dem directement léegi dafay dagg yoon bi bu waroon xëy dem Dakar mu ni buntu Pikine bu wootee buntu Pikine nga fay ko cent franc mu woote wootewaat Escouade wala mu wootewaat feneen nga fayaat cent franc noonu lañ koy dagg-daggee nga xam ne daal yàlla na yàlla doolu ñu sutura suñ moor waaye daal tabaski mi ngi noonu kon euh, baay bu nangu la doom ju nangu ak itam soxna su nangul borom këram sëriñ moor ah, jërëjëf imam Basir neen kontaan nañ lool wax dëgg yàlla suñu ko sëdd na ci xam-xam bi ak dal bi ak leeral bi waaw imam kon mu mel ni dañoo am lu ñu war a jàng ci tabaski te ñu bëri a mbir ndax wax nga léegi ci biir nit ñi ñi dafa am lu leen yàlla war a jaral waaw bu ma koy faral di wax toujours man yàlla dafa ni ni ngeen ma jaamu wala ngeen may jaamu nangeen ma xam waaye kenn mënu maa xam mel ni yàlla daf ñoo caax caax bi nag ni ma koy tekkee mooy yàlla dañ koy yëg ndax imam dañuy noddu fajar nga jóg bàyyi li ngay def yëpp dem ci jàkk ba taxaw kon loolu yëg yàlla la imam ndax tabaski lii mu ñëwee nii euh, kilifa yi ni ñu ci sonnee di ci defal seen njaboot lu ne da nga gis ku ci jël deux cent mille may ko soxnaam ci jël kerefaas wala dara est-ce que dinañ toog ak ñoom waxtaan ak ñoom li waral bis bi li waral sabab bi ak tey jii nga xamante ni bu fekkoon ne tey suma Ibrahima doomam jooju rendi nañ ko tey ñun yi di njaboot bi kenn ku ci nekk bis bu jotee dafay daggante ni ñu rendi la ba nga xamante ni bii yu ko mën a moytu xam li nga xamante ni mooy dëgg dëgg dëgg dëgg ak bis bi ñu dolliwaat ci suñu borom euh, gën na ragal suñu borom ngir bu dul dara sax yërmaane bi suñu borom am ci doomu aadama ak bëgg gi suñu borom bëgg doomu aadama ñu gën leen ko jàngal gën leen ko xam est-ce que loolu ëppul importance jënd leen bassin rek wala jël greffage bu cher jox leen imam Bachir te loolu yëpp ñu wër mais imam euh, dama bëgg ñu am tuuti dugg tuuti rek balaa ñu lekk ci temps bi si jamono bi nga xamante ni kenn mënul waxtaan te toujours ni ñu koy waxee mbas mi ñu lëmbee àdduna la te damay wax ni loo xamante ni bii mënoo koo gis xamoo fu mu nekk xamoo fu mu nekkul te foo dem war ko faa foog kon fagaru war na ci boo fagaroo di nga fegu te boo fegoo mën ngaa mucc imam yow dinaa la laaj ci mbas mi ndax dafa am benn taxawaay boo ci taxawee parce que yaakaar naa ni yoon woolu woon na la ci ngir lan ci jàkka yi ma déggoon nga wax ci wax bu am solo daan ne ñun de war nañoo moytu lii te ndigal yi nga xamante ni kilifa nañ ko ñu respecté ko te moytu te te bàyyi distance yi tey takk masque yi waaye jàkka yi bu ko kenn tëj ndax suñu borom mi nga xamante ni tey ñun ñi nga xamante ni daf ñuy dund bii doomu aadama mu sant ñu jaamu ko benn néeg rek la fi am. lu dul jàkka ji kon moom mi fi indi mbas mi néegam boobu ñu koy ñu koy dugg di ko jaamu di ko ñaan ngir lii ñu jële ko fi suñ ko tëjee de ñu ngi ñëw dañoo jël garab yi ñu lakk ko nga ne leen dugg ci jàkka yi mais nag nañ leen mettre distance yaakaar naa ni imaam yoon sax wooy woon na la ci mais tey jii mel na ni yoon dox na la dëgg ndax tey jii ubbiwaat nañ ko te vraiment wax dëgg yàlla taxawaay bi ñu ci am ngir diine ak am farata ci li ngay def ak bëgg lu baax ñu yor la ci xamoo lu dul jàkka ak daara jàngale xam-xam di yar xale yi imaam kon yaakaar naa ni euh, soo ci su ma la ci interpellé yaakaar naa ni interpellé naa ci koo xamante ni xam na ci dara ndax moom la gën Bachir. barakallah sëñ Mor euh, lu lu am am solo nga wax ndax itam mbas mi jaaxal na ñëpp waaye jaaxalul borom bi subhanahu wa taala dama wax ni li manil mulkul yawma ji alquran di wax ni bu ëllëgee moom la yàlla di bàkkoo dinaa bu jaam ñëpp deewee yàlla wane ne ana ñu doon buur boobu ana borom alal yi ana ñu jàppoon ni am nañu seen sañ ana borom xam-xam yi àll ni selaw yàlla fëgg dëgg dënnam lillahi lwaahid alqahaar kenn rek mooy buur mooy subhaanahu wa taala waaye dama ni loola ñëw na tey ci àdduna bi ndax àdduna bi yëpp ñoo maase wane seeni tële ci mbas mi boo xoolee ba muy tàmbali ñu ngi tàmbalee ci réew yi ëpp doole mooy les grandes puissances Chine ak seen doole ak fi ñu toll ci wàllu xam-xam fi ñu toll ci wàllu médecine mais ba mu ñëwee jaaxal na la bi mu demee Amérique jaaxal leen France ak Italie ak Espagne ak fu nekk ak doole bi am yëpp te dafa mel ni sax ñun li ñu ci amako si ñoom ñoom amuñu ko ci mooy même bu fekkente ni wax nañu dugg na ci suñu réew yi li ñu wax ni moom la dal eggagul ca nombre lam dal ca réew yu mag yooyu lim fi rey segam am na ñu mu rey te gis nga ko yaakaar naa boobaay dañuy wax ni ñu ngi bëgg a mat juróomi weer wala juróom benn weer. ay nga xam ni sax même mbir mi niñ ko niñ ko coowee niñ ko eddale mhm. yëggul foofa jàpp naa nag lañ ci war a gën a jàng mooy ñun war a tuubaat dellu ci borom bi subhanahu wa ni kenn rek moo mën mooy borom bi subhanahu wa taala du tee li ñu war a def ñu def ko ndax damay wax ci juumi mbas mi li mu santaane mënuñu ko ba mu jeex mais yàlla lim santaane mën nañ ko ba mu jeex mbas mi li muy tere mënuñu koo bàyyi ba mu jeex mais li yàlla di tere mën nañ koo bàyyi te nag ñàkk jëfe santaane yàlla yi ñàkk bàyyi tere borom bi subhanahu wa taala bokk na ci li fi indi mbas mi ndax feebar dana am saafara dana am garab mm-hmm. waaye nag bu dee balaa bu dee mbas moom amul saafara ndaree ñu tuubaat dellu ci yàlla subhaanahu wa taala mais dafa mel ni tey la nit ñi gën a bew mm-hmm. tey la nit ñi gën a fàtte yàlla mm-hmm. tey la nit ñi gën a wóolu seen bopp mm-hmm. nga xam ni jàpp nañ ni takk masque moo ci musal nit jàpp nañ ni raxasoo ci musal nit yooyu même buñ jàppee ni ay jumtukaay la yu ñu war a jëfandikoo itam nañ ko def mais nañu jiital borom bi subhaanahu wa kon yooyu na topp ci ginnaaw ndax sabab yi dee su ko weddi mais nag mbir yi nekkul ci sabab bi ki nga xam ni nag moo yore mbir yi mooy borom bi subhanahu wa taala mm-hmm. kooku nañu delluwaat ci moom te bokk na ci li ñu war a def ñu def ko mm-hmm. ndax ay jamono ñu ngi doon wax nañ ci jàkk yéeg nañu def nangam mm-hmm. li wane ni yooyu yëpp du solution même bu dee yeneen réew def na ko li wane du mooy bi ñu ko tëjee dem nañu dem ba mbir mi demaat bay dépassé la ñu yaakaaroon wala fañ xalaatoon ñu mujj ñu ko te bu ñu dajewul ci jàkka yeeg jumaa yi daje feneen mm-hmm. ndax boobaa léegi ñu ngi daje ci marché yi ñu ngi daje ci oto yi te dafa mel ni même bu ñuy wax distance li ñuy wax ne nañ ko respecté mm-hmm. ci jàkka yi rek lañ koy soññi nit ñi mm-hmm. waaye faneen fu ñu dem dañuy daxasoo marché ba ñu te ciy toppaloo xew yeeg yëpp ñu ngi ciy toppaloo oto yi noonu même commencement bi ñu ngi doon wax ni yenn oto yi buñ ci surcharge. mais léegi surcharge bi ba tey la gën a bareeti. léegi jël nombre nga xam ni respecté tuñu ko. même jël nombre bi da ngay gis ni ñu bare bari respecté wuñu ay distance yu gàtt lañ koy defee euh, fi ñu yaakaar ne montage a nga fa mën nañ ko respecté mais buñ ko génnee duñu ko def. léeg-léeg nga dugg ci tata boo xam ne dañuy jël sax ay euh, siwo ñuy jël ay paan teg ko ci biir toog ci. kon da ngay gëm ni. Euh, lii mbas mi santaane mënuñu ko ba mu jeex mais yàlla li mu sant bokk na itam ci liñ ci war a jàng mooy nañu farataal faj mi suñu autorité yi nañ ñu nañ ñu dollee wekk ñàkk ñoo wekk mooy bis bu ne tudd ay milliards ci réew mi te boo feebaree ba nga faju doo mën a faju ku ci feebar jël nga sa avion génn réew mi dem faju mooy kon warmaaluñu ñi leen jiital ndax li wér ba wér mooy réew mii nga xamante ni ci la nekk yàlla dogal ñu jiitu yàlla dogal ni lépp tege ci seeni loxo war nañu fexe ba ku fi nekk boo waree liggéey nga liggéey soo waree jàng nga jàng boo feebaree mën a faju ñu ànd nit ñi ci loolo te bu doon teg nañ nit ñi ci condition yu baax kon bu ñu génn réew mi di dem di bitim réew wala feneen daanaka képp koo xam ne borom doole nga rek ñu ci dana a bàyyi seen doom yi sax jàngewuñ fi dañuy dem bitim réew wala ñu ngi jàng ci privé yi nga xam ni euh, programme France la ñuy amee wala programme la yeneen réew yooyu nga xam ne même bu ñu nekkee Sénégal école yooyu duñu école yu Sénégal programme yi ñu amee programme France la wala Canada walla ci yeneen réew yu mel noonu nga xam ne dëgg-dëgg kon ñun ñu ñu ci réew mi ñi ñu jiital sax daanaka nawloo wuñu waaye tam sax ormal wuñu yàlla na yàlla boole ñu defal sutura nag mbas mii yàlla ci mën dara yàlla na ko yàlla génnee te lañu wax nag ci raxasoog takk masque kenn ku ne def ci kenn kàttanam du tee lañu war a def ci suñuy jaamu yàlla ñu def ko bu ñu waree daje jaamu yàlla ñu daje jaamu yàlla ndax ku dajewul jaamu yàlla di nga daje def leneen. jërëjëf jërëjëf jërëjëf imam Bachir macha allah tabaarkalla am nañ mbégte lool wax dëgg yàlla ci dalal la ci télévision Kifne TV ci ëttu kër gi mbokk yi ni mu leen ko waxee ëttu kër gi lañu wax. kër gi ay néeg ñoo ko wër néeg bi def ay xam-xam waa ëtt bi soxla ko war ko jël seen xel seen bopp Mor Maram ñoom di leen jox la koy xool di leen présenté tey dina leen ko waxee woon ñu am gan bu màgg ci ñun kilifa di borom xam-xam di yàggat di imam Bachir gis ngeen kàddu yi fi yëkkati macha allah kenn ku nekk mën na ci mën na ci jaral imam sànq nga wax lu am solo muy masque yi ak distance dama wax benn waaye ni ko yow de yaa ngi nii ci biir oto bi def ko masque man de dama jàpp ni yow da ngay xeex ak sa réew ndax nit war naa judd ci réew màgg ci réew say wàjju nekk say kilifa nekk ngay xeex ak réew maanaam génn dugg ci nekk fa te takkoo masque man jàpp naa ni xeex ak sa xeex sa réew la yaakaar naa ni doo ci am dara kon mbokk yi ñëpp ñu bàyyi ci xel te xam ni réew mi ñoo ko bokk. ñun ñëpp ñu nekkee benn benn say suñu borom mën nañoo dimbali imaam Basir ni ko wax ni nga ko waxee néegi yàlla bi amuñu lu ko euh, nañ ciy dem di jaamu yàlla waaye nag di respecté distance di raxasu ndax dafay actualité boo xamante ni tey kenn ku ci nekk ci ñun dañ cee war a bay sa waar bàyyi ci xel waxtaan ak njaboot bi foo nekk fu nekk nag nga doon fa exemple nekk fa représentant Sénégal sénégalais bu nekk saa boo génnee sa kër rek représenté Sénégal. ci lan ci xeex bii nga xamante ni moom la ñuy xeex mbas mi kon mbokk yi ni ñu leen ko waxee ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, fii ci seen rajo Kifne TV tey jii nag ñu amoon ci gan bu mag imam Bachir euh, ci waxtaan bi nga xamante ni moom lañ defoon ci tabaski ak mbas mii nga xamante ni moom la réew mi kon imam euh, tey soo doon tàggatoo imam yan kàddu ngay tàggatoo. yaakaar naa sëñ bi moo xam naa di delluwaat sant yàlla subhanahu wa taala di la gërëm ci dalal bi ak yi fi fekk di ñaan yàlla télévision bi di Kifne TV yàlla yëkkati ko ba mu egg ci kaw ba lépp loo xamante ni mooy nëbëtu ñu ko sos yàlla dogal ñu egg ci lu ko faw ko yàlla defal ñu sutura itam sàmm ñu réew mi ak waa réew mi yàlla baaxe ñu may ñu ay biir di gëm yàlla yu ragal yàlla yu am yërmande ci xeet yi yàlla defal ñu nawet barke te ñu muurloo ko mbas mi yàlla jeexal ko ci jàmm te wutalal ñu fi tam ay ngëneel ak xéewal ñuy jàng yàlla ma yoon xam-xam bu ànd ak ragal yàlla ginnaaw xam-xam ba itam ñu am lu ñu jàpp lu mën a jaamu yàlla ñu liggéey yàlla barkeel seen liggéey ñu ne bitim réew yàlla sàmm leen defal leen fay xéewal ba dellu seen jàmm te bu ñëw fi nekk yàlla may leen luñ jàpp ba bu ñu ñëwee demoon ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi doon di Imam Bachir jërëjëf kàddu yi rafet na macha allah ñun tam am bu baax a baax baax di kontaan bu baax ci dalal la fii ci télévision Kidine TV ci xam-xam bi ak yàgg bi ak dal kon imam yal na yàlla yokk ñëpp dafa la tawfeex bëgg nañ loolu ndax yow bu ñu sax suñu xarit suñu référence mais mbokk yi comme seen émission bi nga xamante ni bi mooy émission ci kër gi ñoo ngi koy yemale fii tey jii waaye nag di siyaar sama rek bu baax ci man Moustapha Niang foofu ci jiital sama papa nga xamante ni mooy Assane Niang ak Badara mi président bi ak ngañ jiite xale yi ñoom ñëpp ak ñoom Saliou Ngunda ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaar di leen bëggee di leen ñaanal seen yàlla ko yàlla def ci barke Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul waaye nag di siyaar sama mag sama xarit bàyyi moo xam foofu ca pàcc ak sax naam seen dëkk ñu ngi mbokk yi ñu ngi leen di jox daje ba beneen émission incha allah fii émission ëpp kër gi dama wax ne kër gi ay nit ñu ko wër léegi def ay xam-xam seen xarit seen mbokk mooy maanaam ñu ngi téye ñu ko téye bi am na dal bu leen maam Bachir ak ñu ngi leen di wax incha allah beneen émission ci fii ci télévision Kewel TV mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah